أصحاب الدعوة كثيرون يتسترون تحت قناعات الصوفي المطاطة الزائفة فأين الذي يستوي عنده الدينار والمدر وأين المنقطع من البشر إلى ربه وأين العالم العامل الذي لا يميل عن الحق ولو كان مرا وأين الذي يصبر كصبر الأرض إنهم موجودون بيننا لكنهم قلة قليلة أما جمهرة المدعين فقد كشف عن حالهم الشيخ الخليم في أبيات أرسلها إلى الشيخ إبراهيم مفاتي أه، بمأج أنا فأود يعني جمعنا جي لبري موي نك دعوة بما أصحاب الدعوة ni nga xam dañuy woote ak sufyanke waaye nekkuñu ay su ay ay ay ay sufyan ay ay sufyanke ndax dunduñu ko xam nga tasawu moom du ay wax tasawu lu ñu dund la wax amu ci njariñ ay wax ni amu ci njariñ lu ñu dund la jëf la waaw ba tax na ñi nga xam ne ñoo am nag doguk dund ko bu wér-wér loolu ñu néew new néew ñu néew a néew a néew boo gisee melo yi sëñ bi wax nii boo seetloo baax tey wax da yàlla bëreetu ñi nga xam ne tey maanaam diinaar ak doon ju suufa yam ci ñoom xam nga loolu moom bëreetul wax dëgg yàlla waaw koo xam ni alal alal maanaam ab million ak doon ci suufa yam ci yow xam nga loolu <laughs> bëreetul <laughs> ñepp ci suuf yank ngi na sun mbokk mu di bu ñaan lo ay milliards lay ñaan lo ñoo xam nga mok doon ci suuf ci ñu <laughs> mi nga ñi nga xam tam dañoo dogg nga xam yalla kesse mo leen ñor mom rek lañ lañuy ci lepp ñu loolu xam nga ne <coughs> mi nga boroom xam-xam itam boo xam day jëfe xam-xamam te te yàlla rek tax loolu itam buñ seetloo loolu du lu bari lool waaw kon ba tey jikko yi mu wax nii koo xam day amee muñuk suuf day amee muñuk suuf nga xam ne lu ne mënees na ko ko waxal ci lu ñaaw tuumaal ko te doo ko dégg mu tont doo ko dégg mu wax ca loolu it ba tey bëreetul kon jëmmi melow ab suuf yi moom mas na ko waxtaane waaye dund ko nag lu jafe-jafe la lu ñuy te tasawu moom wax ni ma ko waxee amu ci njëriñ ñu dund la lu ñuy mos la man daaq arafa wa man arafa xtaraf wa man lam yaduqin xaraf wala gaa ñi wax maanaam lu ñuy mos loo xam ne boo ko mosee xam la ca ne dégg nga waaye boo ko mosutit maanaam maanaam faw nga am sikk sikk moom doo ci doo ci ndax tasawuf li muy lijjanti mooy jikkoy biir ak meloy biri ak jangoro xol yi loolu nag ci mucc ñu neewani wala man nga fex ba sa kaw ni rafet ni ñëpp rafet ci yow ñor de nga yu yu yu yi nga xane mom moy ay moy yalla yu rëy yu fessi lol man nga ko bañ def waye nak biir gi man nga dekk ak ay jikko yu ban yo xamni eh, de nga manam yoyé man la alak ëlëk ni ko sëñ bi waxee moo mu tek ci ne señ mag bi yëmut ci euh, maanaam loola dafa dafa dafa leeral dëgg dëgg ak tasawuf am na bayit yoo xam ne da ko yónni woon sa euh, borom daal mooti ba mu nekkee ca géej ga bayit yooyu sëñ Abdou Khoudous moo ko ko nettali moom sëñ Muttalaa mi borom téere bi waaye sëñ Abdou Khoudous daana ko nettali daana ko wax lu bare bari sax ci waxtaanam mooy yi tàmbale laysa tasawufu lub sa suufi tarqahu wala buka aka in ganna almugannuuna wala siyaaxan wala raqsan wala toraban wala tiraban ka an qad majnuunan bal tasawufu an tasfu bila kadarin wa tatbaa alxaq walqurana wa diina béet yooyu du du waxi bi ci ci cosaan waaye sëñ bi da cee tegtalu li mu bëgg a wax da cee moo tax mu jël ko yónnee ko borom daal moo tax xam ngeen ne bi moo tax bari na leetar yu mu ko yu mu ko yónnee waaye leetar yooyu bu ma bu ko xoolee ba noppi wan ko ñam ñam nekkal da koy yónnee ci mbooleem kilifa kilifay murid yi ñu xool ko xam ne lii mooy ndigalu sëriñ bi booba sëñ bi dañ ci doon leeral wax ne ne ak tasawu tasawu nag sëñ Abdou Khoudoss moom ak taalibe bi la ko daa ko daa tekkee rek ndax bu ñëw ak taalibe bi mooy tasawu rek daa ne tasawu du sol yére yoo xam ni da koy dabb daaxe xam nga loolu dëgg la du ñëpp ko man yére yu woyof nii sol ko du ñëpp ko man waaye nag ci biir ak dëddu ak nit ñu baax ñi nii loolu loolu loolu loolu eh, maanaam maanaam maqaama la ci daal kawe la ci fi ne te am na melo woo xam ne boo ko yor ñëpp nañ jàpp ne yow fu lalu adduna tax ñu daal lay wut si xam loolu mbirum adduna ngi ci tuuti <laughs> sehwa xafiya daal jox sehwa xafiya mi ngi ci moo tax tasawu du loolu kese nit ki mën na sol yére yi gën a rëy yi gën a baax yi gën a gome te fekk muy ab suufi bu mag a mag maanaam tasawuf dund ko ajuwul ci ay yére ak col ak melaw kaw melaw kaw gi jotuwuñ dara dañ net li abul cheikh abul xasan saazali yàlla dafa dogal <clears throat> am waajoo xam ni ca àll ba ne ca wetu géej ga ca tefes ga daa fa jaamu yàlla nga xam ne moom maanaam amul lenn lu muy dunde lu may bis bu set day dem napp wenn jën fexe ba togg ko ci lay xewlu ci bis bi bu ëllëgee mu dem nappiwaat yalla dogal nag benn bis mu am ku ko tàggu ne ko damay siyar ci Cheikh Abul Hasan Sadali mu ne ko waaw boo me nak ma ko siyaaral te ne ko na ma ñaanal waji neena ki mom nga xane mom ci dekk mom moom dañu jàpp fi gëna a dëdd moom ndax mom yu amul dara lu may mom bis bu set dal dana napp wenn jeen amul lenn lu muy def jaamu yalla gëna waye neena bimu bi cheikh cheikh ahmed Cheikh jëm ca bu mag ba fekk Cheikh Abul Hasan bo ma nga Qahira yakana ci dekk bu mag ba bok nee na ba mu fa demee laajte këram ñu won ko kër goo xam ne moo ko pale ñooyam kër gu rafet ko wax ne mu ne ah waa sëñ bi kee may yóbbante moom mu la yaakaar ne mooy yóbbante xam ne ma yóbbante ci koo xam ne moom ku dëdd la ne moom waaye kii nga xam ne bi bii nee na ma laaj ko ma laajte ko ñu ne ma kat dafa dafa seete woon euh, bur bi maanaam président bi ci jamono yooyu <laughs> nee na mu gën ko wet di gën ne ah waaye ji daal sëñ bi <laughs> nee na ma xaar ko bi mu agsee ma seen ko mu sol yére yoo xam ne ay yére yu rafet yoo xam daa mel ne buur bi ñëw la ma ne ah kii daal daal ma gën léegi nee na bi mu ñëwee teg man nee na ma jotal ko la ma yóbbante mu ne ma boo demee nekkoo ko adduna gi nekk ci xolam maanaam bëgg adduna ci moom la war a moytu nee ko nee ko na moytu bëgg adduna gi mu nana waji ji moom gën naa jaxle xam nga mbiri jaxasoo na ci moom lan lan mooy aduna ak lu dul aduna xam nga kew nga xam yor yor dara mag ci Allah di jaamu Yalla eh Muhammad bay li nga def waaye nena na delo nak bam laaj ma lo fa jëlé nga xam ne rus ko wax lim wax gina bam bam ma laajee dal ma ko dal mom nena aduna ji nga nek dal <laughs> nga wara bay bëgg nena mu joy joy yu metti ne ma wax de mom aduna yalla da ko ci xolam def ko ci loxoom man nag adduna jooju yàlla defu ko sama loxo waaye sama xol la ko def mu ngoog am na yeneen net luñ ci net li xëy na waaye liñ liñ ci war dégg rek mooy mooy mbirum tasaw du ci ay ay col du ci ay yére yitam du ci meloo kaw itam waaw moom ak dundin la waxani xaal bu ne man nit mën na koo nekk nekk ab suufi ndax dama bari ay melo nit ki mën naan ah, maanaam suufi suufi fi ne waxtu ne day day day day wéy ci fi ko borom teg suñu borom mën na laa def fi ni tey ab abid nga xam ne ay jaamu yàlla ngay bare nii mën naa nekk tey ab ab alim nga ne jàngale ngay gën a def nit ñi jariñu ci xam-xam boobu rawatina xam-xam boo xam ne day ànd leer goo xam ne leer bu suñu borom lay doon nga xam ne kum tàbbi sa xol rek day day gaaw dugg ci xol loolu mën na nekk ab suuf wala mu nekk koo xam ne day nekk ab liggéey fi ne nekk ci marché ba nekk tëgg wala mu nekk ab rab wala yu dema noonu waaye la muy liggéey da koy boole ak tudd yàlla dañ amna dañ natlé né ben sëriñ bu baax dama xamul kan la ci gaay yu baax yi benn ma sa ñëw ci mom <coughs> ne né ko dama bëgg nek dama bëgg a tërbiyewu daal nee mu nek ak mom ñetti fan ba amee ñetti fan mu ne ko sa way légui <laughs> da nga jéem a seet nag mu ne ko ngan gi jeex na da na ko ba ma ñetti fan na ko ngan gi jeex na ndax ngan ñetti fan lay yem waa ne ko man dama ñëw ngir tërbiyewu si mu ne ko dé tërbiye maanaam ñun suñu tasawur day and ak liggéey tërbiya go xam man da ngay tok rek loolu loolu xamunu ko <laughs> ni ko legui da ngay wutu semign bo demee ci marché ba bo demee ci ci àll ba manam manam sa yo yoo ci matte gi rek bo lako tudd yalla gi na nek sa sa sa kurus moom semiñ gi nga xam ne zone ne soo ne tëll kii bi boole ko tudd yàlla loolu maanaam bu yag mo moo nga yor sa kurus ni tok ñoo yem mi nga waaye li ñu bëgg wax rek mooy jëmmi tassaw mom xal bu ne man nako am legui na soufi bi xal bako yalla tek rek ci la wara a ne gisoo Ibnu Atalay Sikandari ci njëlbeen ko xikam yi wax na ne bu la yàlla defee ci xaal bii mooy def la ci biir sabab yi nga bëgg ko génn dem ci tëjërit neen loolu shahwa xafiya la mais day am ñoo xamante yàlla da jox njaboot jox la nga yor soxna yori yori njaboot noonu da ngaa war a liggéey yaw moom nga waroo toog moom léegi boo nekk ci xaal boobu nag yow yàlla daa dugal ci biir sa asbaab yi yow léegi yàlla dafa teg la ci biir sabab yi nga bëgg ci nak tok rek manam nek ci tajrit tajrit moy nga tok do def dara tajrit mom fi nga koy defee mooy bu fekkee amul dara lu la war ci mbiri aduna yoro njabot yoro kenn ko wara dundal loolu moom man nga def tajrit mi nga kon señ señ mag bi <coughs> loolu la junj fi ci beet yi nga xane ne da ko yónnee won borom dal mot te muy beet yo xamni ñako jitu ñoko waxon moy laysa tasawufu lubsa sufi tarqauhu wala buka aka in ghanna al mughannuna tasawu loo xam ni bu gaa yi jàngee rek nga daanu jël ne loolu <laughs> loolu loolu loolu dug taali ba taali bi do ko takk ci lool rek fi la nit ki mën naa bëri jël lool lu ñu wax mu daanu mëkk fi jaxase bi yëpp te fekk moom maanaam pas-pasam demeewul noonu xam loolu day am am ñoo xam ne fi ne tey jamono ji sax gis ngeen ko ñoo xam ne dañuy takk ay mbir ngir ngir bëgg moom bu daanu jotee rek ñu gaaw daanu <laughs> fekk mbir yi nekkul ci daanu fi ne maanaam daanu jël rek maanaam jaxase kii bi <laughs> xam nga loolu kilifa gu baax fii ci dëkk bi doo ma sa fekkee jotaay ak cant gu ñu war a dem <laughs> waxtane bay jaxal nak mu denk len ne ah sees yi nag sees yi sees yi nga xam ne moom la ji dañ ko dañ ngeen xam dañ ko luyé <laughs> man bu fi kenn daanu ab jël bo liggéey di war jëlub diw ba te fekk yow sees <laughs> yi nee bu ko dee nga yàq sees yi waaye jëmmi tassu mom du lol kessé man ak taalibe bi du lol rek kenn daanu lol rek mo koy firndeel fi ne mën nga gis koo xam du daanu benn jël fi ne man dara du ko yëngal te fekk fi ne dara moo képp pas-pas fi ne ëpp positif maanaam moo tax mbirum xol la maanaam ak loolu dund xol la loo xam dox la boo xam ne nit ki da koy dox ci biiram rawatina fekkee sellal <clears throat> moo ko lal la muy def sax du bëgg kenn xam ko du kenn xam ko du kenn yëg ko nag mën naa dem ba ak ci xaal boo xam nag du du du mën a téye boobu maanaa lu mel ne jël bi yu demoon noonu lépp dikkal ko waaye loola ñëpp ci ñi nga xamne ñom ñoo dëggu sax fi ne lool bu leen dalé ci biir ni dañuy am kersa wala siyahan wala raqsan manam du tasawu it na du du du yuxu rek ak ciow wala raqsan du am pecc itam fecc rek lool du du tasawu wala wala taraban tarab moy waxtu ne yang nga yëngu rek manam di li wax manam yëngu bo xam du jeex mukk xam nga lu mel ne jàng mii ñuy jàng xasida <clears throat> ci suuf yank da bokk fi ne nun jàng xasida lañ koy wax waaye boo demee ci yeneen zawaya ak yeneen tarixa yi ñoom eh, eh, sama lañ ko tuddee léeg-léeg loolu kenn du ci dëkk maanaam maanaam sama ak ak ak jàng xasida léeg-léeg da ko war a def léeg-léeg rek nekk ci léeg-léeg nag nga nekkaat ci leen dem war ngaa julli ci war ngaa jaamu yàlla war ngaa liggéey te xëy na mën nga koo diglu moom bu dee xasida yi moom bokkute sax lii ñuy wax ni ndax xasida moom daa sell waaye bu dee am na tarixa yoo xam ne seen njàngum xasida day ànd akum day ànd akum tëgg am ñoo ci biir jàkk ji la ñu nekk yor seen orchestre dégg nga maanaam di tëgg ka fecc di way nun nag suñu tarixa bi wax dëgg yàlla yàlla musal na maanaam jëmmi fecc moom daa mel ni bokk ci yàlla na nga gis gars ko ci bëgg a dugal waaye <laughs> wax jaayu ne dañuy jaayu xam nga jaayu moom moom fecc daal moom bokkutoon ci sun sun sun sun tarixa bi moom yoon yi moom tarixa boo xam ne moom fecc bokku ci tëgg itam yaakaar naa bokku ci dëgg wax dëgg yàlla bokk ci moom sëñ sëñ Tuubaa mës sa tëggulu mës sa fekke ba ñu koy defee koo ko defee xëy na séefi bopp ngay def léegi nag dagat naa dëgganut loolu meneen masala la moom masala la waaye ñun suñu tarixa bi moom amutoon loolu